borom daaru salaam dem na ba ñëw yéen murit yéen nuy si leen aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani irrahim alhamdulilahi alamin laa hawla wala quwata illa billahi alil azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci moustapha sallallahu alayhi wa sallam fadliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim noo ngi ñaanal sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a doole ak wéram di nuyu ak ziar baax jëwriñ ñi Daaru Salaam di sëriñ Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke ak mbooleem njabootu maam Cheikh Anta gépp di nuyu nag sunu sëriñ di sunu jëwriñ di sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadou Roqaya ak mbooleem njabootu Cheikh Mahamadou Roqaya gépp mbokk ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ngi ñu topp ci jataay yi nga xam ne moo di nettali histoire ak dundu jaar-jaar yi Cheikh Sidil Mokhtar Maam Cheikh Anta ginnaaw bu ñu noppee ci sunu émission ñaareel bi nga xam ne wane nañ njëlbéenu Maam Cheikh Anta ci njàngoom alxuraan nañ ci gàttal ak ak toppam Serigne Touba ba ni ngi agsee ci dëkk bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba jox ci Daaru Salaam ak mbooloo mi ko booleel tey jii nag ñu ngi jëm ci wàllu liggéeyu Maam Cheikh liggéeyu maam Cheikh xam ngeen ne wax naa ne capital bi gën a riche ci àdduna mooy suuf ak mbooloo ci jamono jooju 1888 1888 jàpp 1889 ku mu fekk nga am mbooloo am capital am nga capital ku fekk nga am suuf am nga capital maam Cheikh Anta nag dafa boole am mbooloo ak suuf kon am na ay moyens te bul fàtte ne 1886 la gane àdduna kon 1896 ci la am fukki at 97 98 day am fukki at ak nangam bi ko 1886 ba 1896 mooy fukki at Maam Cheikh bi muy ànd ak Sëñ Touba ci ay fukki atam ak juróom fukki atam ak juróom benn du ko bari leegul du ko ëppalagul euh, mu mu doon koo xam ne mu doon koo xam ne ci ci bi ko Serigne Touba di jox Daaru Salaam di ko boole ak mbooloo ñaar fukki atam manqué na kon wax naa ne am na capital ci wàllu mbooloo am na capital ci wàllu suuf lan moo def nag moo des nag mooy exploiter mbooloo mi ak exploiter suuf si maam Cheikh Anta daal di fas yéene taxaw nag. mbooloo mi mu séddalewaat leen kenn ku nekk delluwaat ca fa nga jóge woon ci sa dëkk boo dee sëñ Mor Faati Touré sanc dëkk bu tudd Madina ture waaye fekkoon na booba mu am ay beneen dëkk bu ñuy wax Touré Ndula nekk fii ci wetu Ndula am fa suuf su yaatu daanaka dafa xawoon a xëttaloo lu bari ci suuf suuf suufu Ndula yóbbu Alaaji Mun Njaay Jóob mu sanc Daaru Xadim am fa tool yu baree baree bari dellu alaaji ibrahima ja sanc ndéem ak ay dëkk yu bari euh, sëñ góor a baaxum sanc daaru baaxum sëñ góoram ndooy nekk piir bàyyi njuug nekk ñaaxeen mu sanc kër Ousmane ak kër Samba Kan boo fa génnee sëñ mut Diouf nekk kokki sëñ Ibrahima caam nekk Thiamène euh, ma Lamine Faye Baye Lamine Faye nekk nekk nekk boo jéggee nga dem Sugeer fekk fa sëñ Mut Jeng say ak sëñ Mut Jeng ma ca des ak seeni wayjur nga ñëw nga ñëw nga ñëw nga ñëw nga ñëw nga yoxeem sëñ euh, Ablaye Ndiaye ngoy xem ne fa nga dem baari fekk fa sëñ mu tin ñoom ak la ca aju nga dem nga dem nga ngaram fekk fa sëñ seex ndaw euh, nga ngaram nga fekk fa way juru sëñ Mudu Maamun Fay ñoom sëñ Aliou Fay nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem tàllañ fekk fa sëñ seex ndaw dem Ngeme fekk fa sëñ seex Fall noonu nga koy toppee dem Sinjaan dem Seeseen ba ni ngay demee Bari boo demee baari fekk fa sëñ Mut Nduur ak sëñ Mut Tin noonu nga koy toppee ba dem Sibasoor noonu nga koy toppee ba dem mm, Mesra Alba nga xam ne boo xoolee maam Cheikh dama lay wax ne li tàmbalee Njaambur jaar Kajoor jaar Bawal dugg Siin. ba dugg Saalum fenn fu ci nekk am na seex sum fa rek ñoo xam ne bay rek lañuy def bay mu def ay point de traite maam Seex Anta def ay point de traite diggante dëkk yu ne mu boole leen benn seko benn seko ñoom ñëpp ñoom seex si bu ñu bayee seen gerte foofu lañ koy yóbbu maam Seex Anta yónnee fa benn point de traite boo xam ne mooy peese gerte gi di leen financé xaalis ñu jënd gerte yi ci jamono jooju. nga xam ne mu jur na li ëpp ci gerte réew mi bu ñoree maam Cheikh Anta koy jënd ca lépp lu état taxawal muy tubaab bi bu dee jëndee fissin maam Cheikh Anta jëndee duubal bu jëndee duubal mu jëndee duubal ak tànk bu jëndee lee mu jëndee dërëm nga xam ne toujours mooy ëpp ëppale tubaab bi ba noppi gën ko yomb nii gaar bu mag gaar bu gaaru tubaab bi demee rek ci biir réew mi maam Cheikh kon ci wàllu mbay mu ciy def loo xam ne kenn ku yàlla bind mu set génn lu toll noonu ci wàllu mbay am ay baykat yu wóor ba noppi di jënd te booba mbay rek a xew euh, loolu sax feeñ na ci wàllu mbay jamono ji bi nga xam ne 39 14 18 guerre boobu jeex na 14 18 bu mu jeexee réew mi dafa àdduna bépp ñàkk tubaab yi booba diw guñ diyee seen fetal yi ak seen kën yi sax amatuñ ko ba mu yà yu ci bari di yàqu dañ leen a wax ne bu ngeen demee Afrique ci réewum senegal am na fa benn opérateur économique bu ñuy wax Cheikh Sidi Mokhtar Maam Cheikh Anta li mu am ci gerte mënuñu koo jariñoo te bu ñu ko jëndee liñ soxla ci du dañ ko am at moom maam Cheikh moo jaay tubaab bi gerte kon loolu rek tegte la nag moo war a mën am xaalis waaye yemut ci loolu maam Cheikh Anta di développé wàllu économie def transport transport damay wax ne li ñuy wax horaire horaire maam Cheikh ko njëkk a ci yoonu Mouride bi sëñ Touba nekkee Njaaréem 1912 1913 ci la maam Cheikh Anta jënd oto yu bari ne oto yi nag ginnaaw sëñ Touba Njaaréem la nekk te Mouride yi dañ koy soxla. naa fexe ba fu am murit mën nekk su xëyee dana mën a am oto bu ko andi njaareem ndax booba war waay bariwul ñu bari fas la ñuy war ñenn ñi dañuy dox waaye maam Seex Anta def horaire ndar ndar njaareem benn oto njaareem benn oto ndar bii di jóge ndar di ñëw njaareem bii di jóge njaareem di dem ndar ñu jóge ndar ñëw njaareem bu ñu bëggee ñibbi oto horaire baa ngi fi ñu nekk njaareem ñu jóge nekk ndar bëgg a ñëw oto nga fa noonu la ko amee woon njaareem tëngéej noonu la ko fa amee woon njaareem am na kër gu nekk maam Cheikh Anta amoon na kër di foncé noonu la amoon kër di foncé njaareem noonu la ko amoon Kaolack njaareem noonu la ko fi amoon nga xam ne kon dëkk yu mag yi dëkk bu amoon na ko Thiès njaareem dëkk yu mag yi fenn fu ci nekk wutal na leen horaire boo xam ne day baggante ngir di mën a indi nit ñi ñuy fekk si maam euh, sëñ euh, sëñ Touba kon ci wàllu transport ak wàllu mbay gis ngeen ne ni mu ciy développé waaye bul fàtte nag ne yaayam soxna Anta Ndiaye Mbacke ci njëkk taxawal société ci la bokk di rabbu ay seet ak yooyu waxoon naa la ko ci émission yooyu weesu woon kon ci wàllu économie xam nga ne maam Cheikh Anta liggéeykat da ci waaye yemul foofu bu dee def mbay di def transport da doon def commerce commerce maam Cheikh Anta nattabli woon bitik bu mag mi mu jënd woon ci xombal te doon waxaale marchandise ma waa ji di ko xeeb mu ne mu dem ci borom bitik bi ne ko jaay ma bitig bi marchandise mu jaay ko mu dikk ne mm, waa ji génnal loolu histoire andi woon na ko noonu la amee woon bitig njaareem ci kër sëñ tubaa gi man sama jur sëñ Thierno Jaxate moo Seex Jaxate ak Seex Sëli ma jur ñoo bokk benn ndey Aminta Jeng jur leen e, moom Baye Thierno nee na ma bitig bi nekkoon jare maa moo ko yoroon maam sax da ko daan sarse ba mu fees mu ne ko waa kër sëñ Touba ñi buñ génn kër gu mag di wuti dara ci marché bi ñoom luñ bëgg da leen ko jox waaye ñii jóge ci mbedd mi ñëw ci bitig bi luñ bëgg da leen koy jaay saa yu bitig bi jeexee nga laajaat ma nga ne kon bitig bi maam Seex Anta ko doon sarse kon ci wàllu commerce te noonu la ko amee woon Ndakaaru noonu la ko amee woon Ndar kon wàllu commerce daana ci yëngu daana yëngutu it ci wàllu jënd ak jaay ci suuf wàllu suuf maam Seex Anta ku ëpp ku ku ku maanaam ay jaaykati suuf yi nu leen tuddee eh, ca la bokkoon da am suuf titre ko def ko titre foncier moom maam Seex Rahima Fall da daan jënd Ndar lu seer titre foncier ko bu gisee client jaay ko eh, loolu rek danaa ci nettali benn xisa bu gàtt Euh, des points ci ci want yi ñuy def want officielle yi ñuy def kër gu doon jaay maam Cheikh waxaale ko ci boori di foncé bi ko maam Cheikh waxaale waxaalee tubaab bi ci njëg ci njëg du ëpp booba seeragut du ëpp ay ñetti junni ñetti junneeg nangam mais maam seexante dafa jënd kër gi te booba yurut xaalis de mais waxaale na fekk ñu fay ci kër gi ñaari junneeg juróomi téeméer maam Cheikh Anta dikk na moom mën na ci ñetti junni. kenn tegu ci baat ndax booba ñetti junni yombut waa ji na ko d'accord ak moom ci jaay ko ñetti junni maam Cheikh Anta na ko suba ci 3 heures laay mën a fay si ñu dakkonte moom bindante ay këyit bi maam Cheikh Anta daataaka jënd fay si kër gi ab tubaab jóge na ndar dikk dégg dégg ko déggoon wante officiel bi mu dikk bëgg kër gi ñu kër gi am na ko ñuy wax Cheikh moo ko jënd mu ñëw maam fekk maam Cheikh Anta rival mi mu nuyoo moom ba noppi na ko nag kër gi yi nga jënd moom laa bëgg maam Cheikh Anta na ko doyoo ma ko dara di dama koy jaay rek mu wax ak moom ñu jubóo mu jaay ko ko ci 22000 léegi kon xam nga ne 15000 la ko jënde woon jaay na ko vingt mille mu fay ko 22000 am mu jël 22000 yi dem fay 15000 desel desel 7000 francs ci wàllu njënd ak njaay loolu daan ko ci def kon wax naa la dana def commerce dana def jënd ay kër ak a jaay ak titre foncier suuf ba mu baax mu jaayaat ko dana def itam wàllu euh, mbay loolu daana ci yëngutu daana def wàllu import export maam fa maam côté yu baree baree bari daf caa yëngutu ci wàllu ci wàllu ci wàllu jënd ak jaay ci wàllu dajale xaalis waaye loolu nag li ñu wax ne kasbul xalaal boo ko defee ba noppi nag infaq fi sabilillah da nga koy dépensé waat ci yoonu yàlla maam Seex Anta loolu mu doon am nag bi mu ko dajalee nag ba nga xam ne 1919 wax nañ ne bokk na ci ñi ëpp alal ci senegal bokk na ci ñi ëpp alal ci Afrique ba aw turam àgg ci fépp nag maam Cheikh fan la def alalam incha allahu rabbi suñu ñëwaatee ci sunu tomb ñetteel bi daañu leen ko àndal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax ci topp gi ngeen ñuy topp ci seen télévision Assalaamy TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. borom daaru salaam dem na ba ñëw yéen murit yéen si leen.